tabarakallah dafa mel li nga résumé ci xalif généraux yépp ndax cheikh nga kook ñoom dund nga kook ñom top nga kook ñom té li ku ko déglu rek dina xamné c'est une réalité waye li nga xamné ne bëgg naa ñu dëgmal ci actuellement muy message bo xamné ne bëgg nañ nga jàllale ko muy message de paix message de bo xamné ne dañ ciy sensibiliser nit ñi ci ay quelques mois rek ñu ngi jëm ci élection té ku tuddu élection tuddu ciow tuddu violence tuddu yu bari bari té toujours nit ñi dañuy wax né kilifa diine pourquoi duñ wax pourquoi duñ wax waaye rek waaye bu kilifa di yi waxee itam nañ leen dimbale jëfee liñ leen wax ndax yéen du ngeen digal kenn lu bon yéen a gën a ëpp responsabilité ci réew mi ndax yéen mënu leen daw génn réew mi mënu leen dem feneen kon nag yan kàddu la Thierno Cheikh di yëkkati jamono yi di paase sax am na kàddu yooyu yëkkati woon euh, ñaaxee ko ci wàllu élection yi waaye bëgg na da nga dellu siwaat si ñaax njaboot yi ñu gën a xam lan mooy seen responsabilité ci élection. jërëjëf euh, Wilane ci laaj bi euh, may wax moom mooy nguur yàllaa koy joxe qulillahumma malikal mulki tuutil mulk man tasha def na ko ci képp kum ku soob moom suñu boroom gis nga kii toog toog na ba pare kii toog ki yàlla di jox nguur gi toog na ba pare sabab moo fi des sabablu kon warul jar ñuy xiiroo di ŋaayoo di xeex di tojante bopp jaru ko ñépp nañu ànd ak discipline ànd ak dal su jour woote yi jotee kenn ku ca nekk sa kart nga yor yaa xam ki nga bëgg soo duggee ci biir nga wooteel ki nga bëgg soo ko wootelee pare demal nga ñibbi sa kër jarul ngay toog ci mbedd yi wala di xuloo di xeex su fekkee ne génn na ki nga bëggal moo génn nga génn alhamdulillahi wane sa mbégte su fekkee ne ki nga bëggal jotul amul yàlla jox na ko keneen nga xam ne yàlla moo ko jox yowit nga wutaat beneen yoon man lii laa ciy wax en tànk kilifa diine ndax lii rek mooy indi jàmm ci réew mi gis nga violence joxul dara yàlla sax bëggul violence moom day wax sax fitna dafa dafa nelaw rëbb na ku ko yee loolu la yàlla wax waaw léegi nag kii yee fitna yàlla rëbb na la waaw yow kooku est-ce mën nga am nguur ku yàlla rëbb na lay amee mbuur da ngay ñaan yàlla kay yàlla defal la mbaax nga mën a am nguur mais fii ak yaa ngi yëkkati fitna doo am nguur ndax yàlla rëbb na ku yëkkati fitna kon nag nit ñi ak opposition beeg pouvoir beeg ñoom ñépp nañ delloo ci seen xel ñu xam ne lii Sénégal benn gaal la kenn mënu koo xarñaar sama maam sëñ Abdou Aziz Sy Dabakh dafa doon wax ñun ñépp ñu nga ca biir gaal ga waaye ngal la bul fexe yow ni nga sauvé déedéet fexeel gaal bi sauvé rek su gaal gi muccee rek ñépp mucc waaye wax ne duma lekk ci ndab li waaye dinaa ci xëpp suuf loolu jaaduwul te ñun ñépp nag ay mbokk lañ koo ci limal maamam benn ñaar ñett mu ne la ñun ñoo bokk benn maam kon nag jara daru fi jaru fi xeex gis naa fan yi tamit aussi Euh, conseil constitutionnel bi ñu ngi def euh, euh, mbiru parrainage bi mais liñ ci gisagum liñ ci gisagum macha allah ñu ngi ko jaarale ci kow yoon ndax def nañu ay tirage tirage lañu def tey ñu ngi ci ñu ngi réviser ñu ngi xool ñe ñan ñoo am doublon ñan ñoo am na kon foofu ñëpp ci yem ñëpp ci yem. war nañ cee xoolaat bu baax a baax nag man nag di sama xalaatu bopp la parce que am na ay machines yoo xamante ne vraiment état bi mën nañ ko wut ñu indi ko Sénégal fekk sax jarul gis nga comme ni nit ñi di dem di dem di woote ji ci bureau yi jaratu ko Amérique léegi loolu amu fa. da ngay ñëw rek bés bouton wooteel ki nga bëgg dem nga sa xeex du am xiiroo du am te loolu nag war na mën a yegg Sénégal donc maa ngi lancer appel euh, gouvernement bi ñu fexe ba yooyu mbir yooyu développement yegg fii ci Sénégal su boobaa xeex du am xiiroo du am. Euh, ñu ñëw rek ci ziar Louga bi nga xam ne incha allahu taala mooy doon dernière ziar ci président de la république en tant que président mu ñëwoon ko nga xam ne ko doomu Thierno Bachir la. xaritu Thierno Bachir la moom mooy premier président bu njëkk a teew ci ziaru Thierno Mountaga Daha en tant que président de la République tombe itam ci xilaafa cerno Bachir Thierno Bachir bañ ko ba teralee ko yëkkati kër jox ko ko pour bu ñëwee Louga mu di fa dal laaw kon nag bu ñu demee ba egsi fii tey te yow muy sa mag di sa xarit nga dox digganteem ak Thierno Bachir bëgg nañ xam ren ban réserve ngeen koy euh, jagleel ci ziar bi nga xam ne ziar tàggatoo lay doon moom ak kilifa gi. Eh, jërëjëf eh, Wilane eh, soo ma ci président Macky dina kontaan lool dinaa sawar lool ndax nit ku baax a nit ku am yërmande nit koo xamante ne tamit aussi ku social la nit ku bëgg senegal ndax am naa ci firnde euh, man xam naa ko lool xolam amul ku mu tollale xol buggul gis lu ñaaw moom président Macky président Macky ku baax la président Macky xolu jullit piir piir piir la yor ndax soo gisee ma ne la ku bëgg Sénégal la am na wax bi ma fi waxoon sànq wax nga ko ñëpp naan waaw Thierno Cheikh li mu wax waaye wax boobu def président def ko firndil ndax président moom mooy président Sénégal su ko neexoon mu forcé def troisième mandat te kenn mënu ci dara amaana réew mi tàkk deret tuuru waaye du tee li mu bëgg mën na koo am waaye ak jikkoom ak mbaaxam ak xam ne moom Sénégal moo ko fi teg te xam ne tamit moom du dem fenn Sénégal fii lay des ak bëggam Sénégal mu ne man comme senegale yi alhamdulillahi man sama waxtu jot na deux mandats waxoon te nit ku fonk kàddoom la président Macky Sall nit ku fonk kàddoom xoolal man bi nit ñi di wax day def troisième mandat wax naa ko ak samay nit ma ne leen man de li ma gis Macky Sall def ci téeréem téere bi mu bind mu ne moom su fekkee ne alhamdulilah def na deuxième mandat dootul pare na ci mu wax ko ci làmminam nit ñi dégg man xam naa Macky tamit xeetam tukkuleer la dereetam dafa diis ma ne Macky du ci mos a dellu gannaaw te li ma waxoon looloo am ndax dama xam jikkoom Macky ak loo ko mën a waxal ci àdduna loo ko mën a waxal ci àdduna wax ko lu nekk ci moom Macky bëggul gis lu ñaaw fan nga koy xamee violence bi li muy bari bari bari su amee rek su paasee da ngay gis mu taal ay otoom ndeysaan di dox ci dëkk bi di xool lu ñu yàq ak lu ñu yàqul mu jéem ko defaraat kon xam nga ne kooku senegal la bëgg senegal la dund kon nag bi mu relancé ne moom du dem ma ne ñi ma waxoon lan laa leen waxoon ne woon naa leen makki gor la doomu gor la du waxu du du lekk lekkaat ko kon nag ñépp jommi ci te ñépp a ngi doon xaar te pourtant partem ñépp dañoo waxoon na dem waaye ngoram ak fullaam ak faayidaam ak bëgg woyam ëllëg Macky Sall woy rek la woy bu rafet mu ne man dematuma demuma duma dem ñépp jooy ñii kii mais ngor la ko waxee avec avec avec bëggul sax ndeysaan su koy su koy wax dangay xam ne njabootam sax ci seen bopp mu ngi leen sooraale waaye moom di dignité moo ko ko gënal kon nag moom su fekkee ne moo njëkk nekk président boo xamante ne buy ñëw Louga ci wetu baayam bi Thierno Mouhamadul Bachir ndax man gis naa Thierno Bachir mosul nangu ay affaire président ci Macky Sall la commencé Macky Sall benn laa gis mu commencé bëgg président di ko jàppale di ko ñaanal makki bi mu jotee réew mi ne ko bàyyi jot naa réew mi dinaa ñëw Louga ziar mu ñëw mu ci moom la commencé waaye xoolal li yàlla di def mu ngi jeexal defe naa dernière cérémonie am dernière ci ci ci ci Sénégal foofu la koy jeexale muy xitaamuhu miskun wa fi dalika falyatanafasil mutanafisu lii kéemaan la kon nag dañ koy ñaanal yàlla moom yiw yàlla fu mu mënta nekk yàlla yiw yiwu yàlla nekk ci moom moom ak njabootam moom ak jabaram bu baax bi Mariam fay Sall bi nga xamante ne moom nekk nak boroom këram dekki nu rafet nekkin bu bu bu jaar yoon ñëpp xam nañ ne yaay yaayu ñëpp la amul luñ ko waxul ci réew mi waaye doo dégg mu wax Mariam fay kon nag ñoom moom ñu ngi koy gërëm di gërëm njabootam di ñaan yàlla yàlla sedd ci ñoom suñu demee yàlla noppal leen lu gën lum leen noppal bi mu nekkee ci nguur bi makkisal Sall jërëjëf Macky Sall jërëjëf Macky Sall jërëjëf. Ah, kon nag alhamdulilah rabbil aalamiin mbokk yi dafa mel na euh, suñu jotaay ak Thierno mu ngi jeex ndax dañ koy bañ a téye lu yàgg wax dëgg yàlla ndax boobu ba léegi mu ngi ci ay ite jóg ñëw waaye rek ngir yërëm ñu ak ñeewante ñu ak itam bëgg ñu bëgg ndax yàgg nañ ko bëgg pour toog ak moom waaye nag euh, moo tax mu nangul ñu ko kon nag ñun tam duñ ko téye lu yàgg xanaa rek dañ koy wax ne ko bëgg nañ euh, kontaan nañ ngi lay ñaanal yàlla li nga yóbbu kër Cheikh Omar yëpp yàlla may la nga def ko ndax ku am yéene nga ci sa kër maam ci sa xam-xam ci sa moyen ci sa relation ci sa lépp da nga koy delloowaare ci kër Cheikh Omar Foutiou te yi nga wax ci kilifa yëpp yaa ngi koy dund te mooy ñi nga bokk ak Cheikh Omar yëpp yaa ngi leen nawloo ñi la ci mag yaa ngi leen topp ba dem rek maa ngi seetaan benn vidéo ci saaru àll yaa ngi am koo toogal cër Cheikh Omar yi toog ci suuf tabaarakallaahu ñoom ñëpp mu no madani mu cerno no Nour bi Dakar imam mu cerno papatal ñoom ñëpp jox nga leen seeni i wàccuwaay ba ci cerno Cheikh Tidiane Tall loolu nag sa cër la tabaarakallaahu sa way jur itam mu yoree xilaafa gi ba léegi taxaw nga ko ci biir taxaw nga ko ci biti te nee naa taxaw gi li ci gën a fees mooy da nga ko yaatalal mission bi fexe ba fu mënul dem nag nga demal ko fa ngir rafetal kon nag Seydou Tall yaa na yàlla guddal sa fan yàlla may la wér ñu bàyyi la rek nga joxe sa kàddu gu mujj waaye nag nga ñaanal Wilane TV mu gën a law gën yaatu gën a barkeel incha allahu jërëjëf Wilane kontaan na lool kàddu gu mujj gi moom mooy euh, ñun ñëpp ñu ngi jublu Louga. Euh, Macky Sall bi moom mooy dernière euh, visitam ci lislaam mm, ñu ngi ñaan yàlla réew mi yépp ñëw jàppale ñu gàttandu ko gërëmal ñu ko taggal ñu ko euh, ndax wax dëgg yàlla moom day sagal nañu sagal nañu lool moom Macky Sall kon nag damay ñaan peuple Louga Macky mu ngi jum foofu euh, te xam naa ne génnam ci këru diine foofu lay doon ñépp nañu ànd gàttandu ko sargal ko won ko ne li mu nekk ci Sénégal ak li mu defal Sénégal ñépp kontaan nañ ci su loolu weesoo may gërëm tamit konu Cheikh mar yi nga xamante ne ñoom la ànd ndool ñu def alhamdulilah cérémonie bii fii ci wokam ñoom ñépp ñu ànd ci ñu nekk ay nit ñu dëggu mooy njaboot gi jigéen ñi góor ñi ndaw ñi konu Cheikh Oumar mënuma leen a fay ndax bëgguñu gisuñu gëmuñu ku dul seen sëriñ muy man manit awma lu dul sama sëriñ Thierno Mouhamadul Bachir damay ñaan ci barke Thierno Mouhamadul Bachir yàlla gis na seen taxawaay kontaan naa lool Thierno Bachiru kontaan na yàlla na leen yàlla defal barke Cheikh Oumar ubbi leen ubbi wërsëg yi yaatal ko ba mu yaatu ñoom konu Cheikh mari yépp ak mbooloom jullit ñi fi ñëw ñoom ñépp ñu ngi leen di ñaanal yàlla kontaan na hada asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu tabarakallah mënuñu ñàkk gërëm sa ñaari njaboot muy alaaji Atou Diop ak ki nga xam ne mooy Chérif Ly ba tabarakallah ñoom euh, daaw ba ñoom lay dégganteel lu ma am ci yow ñoom laa koy gërëmee Chérif nag ma waxal la ko seede la ko gëmul ku dul yow amul ku dul yow ndax sama waxtaan nag moom yëpp mooy nu Cheikh lu muy xaar ba sa mission réussir rek la may wax. nit nag bu fekkee am na kilifa ngay wax moom daaw ba ren mosul wax leneen lu dul kilifaam da ngay xam ne kii kilifaam jaral na ko kon loolu nag ñu seedeel la ko aatu it kasaali ko ku ñàkk caaxaan la ku dëggu la wax na ma li ñuy bañ ci kër gi wax ma li kër gi bëgg lépp. ma ne ko luñ ci man rek danañ ko taxawee kon nag Seydi Taal ñu seedeel la loolu fa tabaarakallaahu am sens su njaboot yu la bëgg gëm la yombul te yàlla defal na la ko waaw waaw ba ci galongal bi ñu ngi doo ko gisee waaye jokkoon nañ téléphone yóbbante yi nga ko yóbbante si ñun yëpp voilà voilà yëpp jot nañ ko moom itam yàlla yàlla taxaw ko yàlla barkeel ko yàlla mootali lépp daal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.